أعوذ بالله شامع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 foofu duñu namoo ñu ngi leen ziar bu baax a baax comme niñ koy defee saa su ne seen émission taaru diine ji nee naa la ñu artistes yi dañuy dem xool fañ nekk ñu fekk jëlee waxtaan ak ñoom tey nañu ñu jóge Dakar ñëw ba Tiwaawan waaye tamit Tiwaawan ñëw ci benn dëkk bu naan Kër Baaba Alima fekk fi firxatu xalafiya ñu fas yéene waxtaan ak ñoom rek ci si wàllu musique afro arab inshallah allahu rabbi dañuy bàyyi chef d'orchestre bi nuyoo rek incha allah ñu commencé dugg ci waxtaan bi salaamaaleykum Mamor waaleykum salaam wa rahmatullah soxna Salam Aroun ñu ngi lay nuyu di leen ziar bu baax a baax di nuyu waa El Vision Média sen téléspectateurs yi ak internautes yi nga xamni ñoy top site bi te di safo ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di bekk ci ñew gi ngeen fi ñew tay set ci wa firhatul xalafiya fi ci kër Baba Alima wax deug yalla leen masawu coono aussi ndax yoon bi gudduna waye waaye teewul ngeen ñew baag si di bekk bu baaxa baax di nuyu wa orchestre bi di nuyu soppee orchestre bi fi ñu mëna nekk ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu suñu wayjuri ak suñu mag yek suñu rakki di bekk bu baax ci émission bi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ni ki noonu ci laay waale waa Amas ak waa Carrefour des animateurs bala ñu maa mere comme démb su ko defee Mamor ñu fas yéene waxtaan rek euh, ci wàllu orchestre bi dama bëgg xam kañ ngeen créé orchestre bi. waaw firxatul xalafiya ah, orchestre la boo xam ni ñu ngi ko créé juillet 2014 yaakaar naa muy toll presque ci ñeenti at. ndax it euh, waaye am na orchestre aussi bu ko jiitu woon euh, tuddoon troupe afro arabe Kër Baaba boobu ñun ci lañ nekkoon. doon ci yëngatu ci wàllu orchestre ba yàlla dogal nag bi boobu ay activité am arrêté lañ taxawal bii di xalafiya loolu moo tax euh, ñu ngi ko créé depuis deux mille 2014 ba 2018 ñu ngi ci ñeenti at. macha allah depuis 2014 ba 2018 ñu ngi ci ñeenti at di di liggéey ci musique afro arabe liggéey bu am solo di leen fàttali ni Mamor chef d'orchestre la waaye en même temps tamit claviste la fii ci ci firxatu xalafiya Mamor ba ngeen créé orchestre ba léegi ci na lan ngeen liggéey ñaata album ngeen amagul. waaw firxatul xalafiya nag comme ni ñu ko waxee ñeenti at rek la amagul bi yàlla dogalee mu am ñaari at mooy 2016 ci lañ def. premier album. la jitu aussi album ba dinañu def yi nga xamni mom la orchestre yi def moy travail bi nga xamni mom la orchestre sax di wara def rek te mom lañu min mo xam ci ay concert la mo xam ci ay animation la mo xam waye dal, le orchestre di def mom ñu ngi ci def suñu kem carton defagul nañ ben album tuddé ko attahiya album bu 4 titres mu ngi gennon depuis octobre 2016 waaw depuis boba lool lañ fi defagul lu officiel manam lo xam jotna gennagum Ah, waaye nag naal yaa ngi fi mooy projet yi waaye peut-être dinañ ci àgg ca kanam. Euh, lan moo waral ngeen jël seen tour orchestre tuddee ko xalafiya xalafiya lu mu signifié. waaw xalafiya muy firi euh, maanaam mu ngi jóge ci baatu xalifa maanaam comme duñu bëgg a wane ni ñun du ñun ñoo fi njëkk a nekk ñu tuddee firxa bi firxa xalafiya pour wane ni dafa am ñu ñu wuutu waaye it ñooñu ñu wuutoot aussi jàpp nañu ñu am na ñu ñu war a wuutu. moo tax ñu tëddee ko firxa bi nga xam mooy alxalafiya te mooy relève relève ci kaw relève ñun daal am na ñuñ fi wuutu waaye ñu nit am na ñoo xam ñoo ñu fi war a wuutu loolu la baatu xalafiya di wundu te mooy relève waaw. Euh, macha allah gis ngeen euh, waa firxatu xalafiya liñ jot a li ma jot a waxtaan na ñoom fii ci kër baaba Alima dama leen di bàyyi rek incha allah rabbi ñu. jox ñu benn morceau bu ñu naan Ara Malika ak euh, Soxna Diouf moo ñu koy way incha allah rabi su ko defee ñu doog a dugg ci wàllu li ñu liggéey incha allah. ayca mi ngi noonu waa firxatu xalafiya mi nga xamante ne ñoo woon ara malika di bind suñu maam Cheikh si al maktum soxna Diouf doon ko wayal macha allah gis ngeen boo leen gisee léegi nga xam ne xalafiya am na ndax lii ci titre bi la bokk ci album bi la bokk mu nekk premier titre léegi dañuy fas yéene waxtaan ci wàllu album bi album bi kañ ngeen ci commencé liggéey. waaw album bi bi bi ñu sosee orchestre bi presque lañ commencé nii dañu bëgg a def album commencé nag di jéem a taqale. way yi nga xam doon doo woon nañ ko ci orchestre bu jiitu ba di ko jéem a modifier di ko jéem a dëppale ak jamono aussi seet ci woy yoo xam ni doon nañ ko woy foofu te mu neex ñu amélioré ko ba mu gën a am solo ndax it ni ma ko waxee rek xalaf yi njibitalu garab bu ñu dagg la garab bi woon mooy firxa bi njëkk ba woon troupe afro arabe de Kër Baaba la tuddoon léegi nag euh, bi ñu ñëwee kon sañ nañu dondu soñ nañu nekk maanaam dondu mën naa ko wax li nga xam ni mooy li fi mag ñi bàyyi woon te mooy suñu mag ñi ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ci orchestre bu jiitu boobu waaw looloo tax dañu tàmbali rek commencé ci liggéey commencé ci liggéey bi deux ans yi mat presque la ñu doog a jiitu dañu génn album <coughs> mais nag li ci neex mooy liñ ko liggéey liñ ci répété lépp lépp concentré wu ci matul dix jours. dix jours matu ko parce que maa ngi rappelé année boobu daara ngoon ñu nekkoon bi daara ngoon yi jeexee. lañ ñi bëgg nañ génne album ren ñun ndax mën naa nekk mënul nekk am nañ xaalis amuñu xaalis ñu ni léegi nañu répété fii ak une semaine ñu xool ba xam ñu defee une semaine lañ jàpp jour ni jour sàngam mën nañ dem pour defee kii mu nekkoon le di septembre 2016 nekkoon ñu ni ginnaaw suba la tabaski ñu dem enregistré lépp ci benn jour wax dëgg yàlla nekkoon journée aussi bu historique ci suñu dund ndax dañ ko yàggoon xalaat dañ ci yàggoon bëgg dañ ko yàggoon bëgg Ah, te duñ ko fàtte ndax it dund nañ fa loo xam ni daal. <laughs> lan ngeen fa mën nañ la ko seedeel ndax coono ba fooguñ woon noonu lay toll mais yàlla def na ci sutura ba nu coono ba toll rek am nañ ci résultat bu toll noonu ndax album bi ba ba léegi nit ñaa ngi koy consommé deux ans yi mën na te c'est très rare nga gis ko génn album album bi am deux ans nit ñi ko ne di ko consommé gars yi buñ génne album dina yomb bu ñu génne album tey mais boo ko yebalee bala moo dem un an nit fàtte ko. bari na fi clip yeeg album yi bari na fi mais xalafiye deux ans am na ko naroon nañ sax génnewaat album ren <clears throat> mais ñu ni comme ni ñu ngi koy consommé nañu def ndànk travailler ci leneen dinañ ci ñëw incha allah ci kanam. Mhm. Euh, album mi ngi am promotion ak kii bi. waa album bi nag wax dëgg yàlla am na promotion ndax ñun fañ ñuy woowee dañuy wax ne ñu ngi fay dégg album bi ñun suñu tànk mosul dëgg foofu fii ba Kolda fii ba euh, Vélingara fii ba Gambie ñu ngi fay déglu album bi fii ba kaw Kaolack fii ba Tamba fii ba Dakar moom jëlee naa ko waa Mbacke suñu mbokk waa Amas yi ak waa Carrefour des animateurs ñoom ñëpp ñu ngi teg album bi léeg-léeg nga dégg la man soxna jaara bi daal mënu ma def émission te dañ ma ko ñaan léeg-léeg nga dégg man soxna Sofi bi léeg-léeg nga dégg ne man taaxaat bi léeg-léeg nga ko ne man aramalikan bi ku nekk ak ba nga jàpp ni moo dàq ci album bi te loolu nag mooy originalité album dangay gis ko génn album benn morceau rek a ci am promo. mais boo génnee album morceau yëpp am promo ça veut dire que travaillé nga ci loolu mooy différence su xalafiya sincèrement. Euh, damay gis nag ñu ne arabisant euh, yow avant ma laajte loolu sax est-ce que yéen ngi préparé clip ci album bi. waaw euh, ça tombe bien mën nañ ko wax ndax nii ñuy wax ak yow mën nañ ko waxee wax exclusivité lay doon ak waa Elvision Média que ni balaa moo am deux semaines mën nañ yaakaar ni ah, suñuy ñaari clip dina génn maximum un mois incha allah bala mu ko am. bu ñaari clip yépp génnul di ngeen gis benn bi bu soobee yàlla kon loolu mën nañ ko xaar ñu ngi ciy travailler te ñaari clip yépp ci album bi lay doon incha allah muy bi nuuru bi nuuri jamalik al ahlam ak euh, soxna sufi dem bi waaw yooyu moom incha allah ñu ngi ci waajal baax a baax pour génne ko def nañ tournage yu bare bari sax ba li ci des bareetul euh, damay dégg na ñu ne arabisan yi clip day yomb waaw loolu gis naa ko de am ña ko waxit juumuñu mais ñun suñu bés bu ñu ñëwee danañ xam ni ñun bokkuñ ci. toog ci benn saal rek tourné fi clip nii rek. bëgg lu yomb yooyu. ñun bu suñu clip ñëwee du ma catu sax suñu bopp day nit du jëm ci làmb aussi di bàkk waaye nañ bàyyi nit ñëw si ñu apprécier seen bopp waaye Vision Médias nañu jël témoin lii fii lañu koy waxee bu génnee nañu xool ñun suñu clip li xale fi wax nii nga xam génnagul est-ce que bu génnee mel na ne noonu dina mel noonu am déet parce que ñun loolu lañ ko constaté. te it yaakaar naa erreur nit daf la war a jàngal mais waroo ñëw rek def nit def erreur nga jaaraat ca moom. moo tax euh, yooyu noonu daal seetlu woon nañ ko dëgg yàlla bari na ci duñu wax ñëpp mais bari na ci ñoo xam ne dañu toog seen salon rek bala ñu lay woni photo wala ñuy wone wool ay ay fond vert ay fond vert ah woon nit mu nekk ca Kaaba gi di woy te demul ca Kaaba ga loolu loolu fond vert la su ko defee il faut ñu travailler dëggantaan il faut bu ñu bëggee musique arabe nit ñi consommer ko surtout ñeneen ñi nañ liggéey ni ñuy liggéey mooy nañ ko jox àqam nañu joxe nit ñi qualité te bàyyi naxaate yi metti na nag mais nañ ko nañ ci sonn quoi nangu cee sonn comme ñun xalafiyee man nañ ñi lu ne dañ koy daj ba ñuy bëgg a génn album dañoo sonn pour am comme bu ñu génnee album bu ñu bëggee génn clip dañoo sonn pour am lu ñu génnee clip mais xam nañ ne loo ci sonn it fexe ba bu génnee mu mu saf nit ñi fexe ba bu génnee nit ñi xam ne ah sonn nga ci loolu mooy loolu rek lañ ci bëgg waxuñu wutuñ ci bu génnee ñu ni yéen a dàqale wala yéen a gën a rafet la bu génnee na ñëpp xam ne ñii jox nañ ko àqam def nañ ci coono biñ ci waroon def bu boobaa nag wàcc nga te loolu lañ ci wut daal. Mhm. macha allah gis ngeen euh, kon yéen arabisant yéen ko déggandoo kili bi dee leen ko jafeel <laughs> waaw lii ngi préparé ay concert ak yooyu noonu. waaw xalaf ya dinay def ay concert waaye conseil it da ngay toog bañu ñu contacter la des fois ñu organiser suñu bopp <clears throat> tabaski daaw def nañ bu mag fii boo xam ne Seyda Binta moo fi doon jouer ñun ñu invité woon ñu comme orchestre invité ñu def première partie bi euh, korité bi passé def nañ benn programme fii benn village bu nekk wetu Tivaouane muy lu am solo euh, ak yeneen ak yeneen mais ñu ngi def ay concert daal ci gàttal am na bu Thiès euh, defe naa mars 2016 la am na bu ñu defoon dëkk yi ñu wër yëpp ba ci kër baaba yi dañ ci def ay concert yu bare bëri incha allah. macha allah gis ngeen yeneen ci El Vision Média euh, di seetaan seen émission taaru dina ji saa su nii rek lay demee ñu ngi fii ci ci euh, Tiwaawan kër Baba Alima fekk fi waa firxatu xalafiya dañuy bàyyi rek ñu joxa ñu deuxième euh, titre bi nga xamante ni Nogoy Diop moo ñu koy wayal Serigne Samba Ndiaye ah. mu bin xasida bi Nogoy Diop moo ñu koy wayal incha allah. ayca mi ngi noonu euh, soxna jaarab lañ ñu doon euh, wayal euh, ki nga xamante ni Nogo Diop moo ko way moom lañ toogal dañuy fas yéene waxtaane moom ci ñaari question rek lan moo waral soxna jaara bi waaw soxna jaara bi boo ko gisee woy la comme yeneen woy yi ci des parce que ñun waa Xalafiya dañu nekk orchestre boo nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu xasida mag ñi ak xasida mag ñi ak bindkat yi nga xam ne tamit dañuy def ci mag ñi moo xam ci sang yu góor yi la moo xam ci sang yu jigéen yi la loolu moo waral ñu jël soxna jaara bi suñu mbokk Serigne Bàcci Ndiaye woy ko ñu jël ko tamit mu nekk woy ba nga xam ne tamit yaakaar naa euh, siiw na ñi ko xam bari nañ mais ñun tamit ñu jël ko def suñu beneen façon ci wàllu musique arab moo waral woy bi ñu ko woy nii. air bi ak eh, air bi ñu ko woyee. air bi waa air bi air la ba air bi dégg air bi air la ba nga xam ne waa xale fee ñoom ñoo ko ñoom ñoom ñoom ñoo ko def. comme ni ko Oustaz Mamor waxee sànq rek comme Halafiya orchestre la boo nga xam ne dañuy toog di waxtaan di def suñu ay répétition euh, kenn mun na indi eeram ñu xool su fekkente ni mun na dem ñu dem ak moom même bu amee beneen mbokk bu amee lu mu si dolli aussi ñu jël ko defar parce que orchestre groupe la du nekkul ne kenn rek moom mooy dem ak xalaatam mun nga indi sa xalaat keneen indi xalaatam buñ ko boolee nit mun na indi xalaatam mu baax mais tamit bu keneen amee xalaatam ñu boole xalaat dajale dajale ko moom mooy gën a am solo je pense loolu moo waral air bii nii waa Xalafiya ñoom ñoo ko créé. waa gis ngeen nee na air bi waa Xalafiya ñoo ko créé mu nekk morceau bi am solo te neex na macha allah mu ci way sunu maam soxna jaara bu soo yaay xaadim ayca day ñëwaat demaat ci ki nga xamante ni mooy Mamor rek. ma si fi xatoo xalafe yi ñu continuer ak maam moo rek mu mel ni sànq soxna Nogoy Jóob lañ doon waxal mu doon ñoo euh, jox ci air bi nga xamante ni moom la way suñu maam soxna jaara Serigne Samba Ndiaye bind ko euh, loo mën loo ma mën a wax ci morceau boobu waaw comme ni mu ko waxee am na solo moom moo ko fi woy li ko jiitu ci orchestre bu njëkk aussi am na ñu ko doon commencé euh, yàlla dogal na woy la boo xam ne ko ni mu ko waxee siiw na siiw na ba defe naa jàngkat yi sax ñu ngi koy woy soxna jaara sa géej gi àdduna mun ko xam waaye ñun foofu lañ ko jëlee mais nag dañ ko instrumentaliser def ci instrument yi modifier ko nag boo seetee deuxième partie bi niñ ko wooyee jàngkat yi ak si foofu mais am na ay modification daal lu ci xalaf yi def ba wax dëgg yàlla muy morceau boo xam aussi nit ñi ñu ngi koy ñu ngi koy consommer fu nekk mu am solo trop wax dëgg yàlla boo ko laajee Juma Njaay ca Zik FM Mbàkke zone euh, bobu wax deug yalla bari na ñoo xamni ñu ngi ki ñu ngi béggee morse bi bu baaxa baaxa baax ñu bari sax ñu ngi ci ñu ngi ci ak ñun di wane seen mbégte ci air bi dal ak way bi di woy soxna jaara ndax it ñom ñoo fi liggéey li fi leer lepp ñom suñu maam yu baax yoy ñom maam faawa de wélé ñom maam soxna jaara ñom maam asukan li fi leer ci dëkk bi yépp ñom ñoo ko wone su ko defee ak yenen maam yi ma tuddul yépp tey te ñu liggéey lu tol nonu ñom ñëpp dal motax ñu sargal leen di war dal ndax ñu ñu jëm ci liñu man pour mm, ci album bi ñenti morceau la way ñu am ci ñaari morceau ñu jaglel suñu mam yi benn mam sufi dem la di ayu suñ Moustapha si benn a ah, jaara la di mam yai mom borom Touba ñom ñaar ñëpp nak ñun ñoo leen njëkk way ci musique arab waaw bu dee mam sufi dem ñun ñoko ko way bu dee mam jaar ñun ñoko ko way a aussi symbole la ba xam nit ñi bàyyiwuñ ci xel waye jaar na bàyyi xel dal yeen ban projet ngeen am yeen waxal fi suñu projet dal bokk na mooy ñu àgg fi orchestre yi mag yi àgg euh, am ci matériel lu doy formé nag ay musiciens yu qualifié di def ay spectacle son et lumière yu yu mel na mu war a mel waxuma yu xor dabb def ay clip yu am qualité waxuma ay kilibantu yi ñuy xew di génn ay morceaux yoo xam ni boo ko dégloo di nga laaj ñi fu ñu aniséré d'abord ak lu ñu woyegee ci aju parce que fee loolu daal mooy suñ bokk na ci suñu projet ak yeneen ak yeneen na wax dëgg yàlla waaye lii daal pour l'instant mën nañ la ko tuddal ni bokk na ci suñu projet macha allah seen projet reyna na fi ngeen san sen bët tamit macha euh damay lan lan ngeen gëna remarquer sen orchestre bi. wa suñu orchestre mom luñ ci gëna a moy orchestre la bo xamni période ba période lay travail loolu remarque buñ ci def la vacances ba vacances lañu liggéey lañu liggéey wala fête Pâques wala fête Noël. du yaqal dara. ah kay ndax gën nañ ni mënon nañ dépasser fi ñu agsi gëm nañ ko. mais malheureusement comme dañoo sorente lool te amuñ ci benn pexe ndax ki ya ngi jàngee fële ki ya ngi jàngee fële ki ya ngi liggéeyee fële vacances rek la ñuy am pour daje amuñu lu ñu gënal lu ñu jàpp ci li fi sës rek ñu jàpp li fi sës mais mu ñu yàqal lu bari ndax fi ñu yem nii mën nañ ko dépassé te ba tey mu dépassé wuñ ko te li ko waral mooy soreyante bi mais yàlla baax na peut-être bis danaañ am occasion jegente ba gën a mën a yokk suñu liggéey daal incha allah. moo nekk quatre titres yi nga xamante ni moom la waa Firqatu Xalafiya euh, liggéey ci année yi passé mu nekk euh, morceau yu am solo macha allah mu mel ni waa Elvision Média am ngeen morceau yëpp mais tamit ku bëgg album bi mu ngi nii ngeen woote ci 77 902 75 26 wala 70 827 05 18 pour ngeen mën a am euh, album bi mi ngi nii ci waa Xalafiya dañuy jeexal rek lan nga gis ci musique afro arabe léegi. waaw musique afro arabe gannaaw bañ la sante aussi dinañ ci ñëwaat <clears throat> musique afro arabe mu ngi seq ay jéego de wax dëgg yàlla di avancé ndax am na yii amul woon mm, ay site internet intéressé wu ci ay orchestre waxumala ak euh, min aqsal madina te mooy fa gën a sori ca dëkk ba romb fi Dakar romb fi Thiès ñëw ba fii loolu bu musique arabe doxul woon dañuy jàpp ne loolu amul du mën a am bu ci des lu mel ni concert yi passé gis nañ Sorano fees ci concert gis nañ Cissesse fees ci concert waaye loolu aussi benn la rek ci jéego yi mu war a seq bu fekkee bu fekkee ne jàpp na ne loolu kese la toog mm, léegi mu delluwaat gannaaw waaye kon na jàpp ne loolu benn jéego ci mbaroon seqi la seqi na ko kon nag na seqiwaat yeneen teg ci mais nañ jàpp ni mu ngi seq ay jéego daal benn par benn di ñaan yàlla mu yokk bu baax a baax ba ñun ñëpp ñu xaj ci yooyu mais mu ngi dox ndànk-ndànk daal ci gàttal. nan lañ war a def yéen jéego lañ yan yéen lañ ci war a yokk. waaw euh, mooy nañu def qualité quoi nañu def qualité sincèrement am na ci ay gars yoo xam ni dañu sam ñu mel ni man la ni man la ñu mel dañu bëgg rek bokk mais sincèrement la ñuy def du qualité. kon nañu def qualité nañu fexe ba li ñuy def na doon qualité nañu travail dëggantaan moo xam ñun waa xalaf yi la moo xam waykat yi la moo xam instrumentiste yi la nañu gën a travailler ci li ñuy def. na mokk maanaam métier daal dafay bokk comme ñoo copte ni musique arabe lañ bëgg a def dañu fexe ba li ñuy joué na leer li ñuy woy na leer dem ko teg ci yoon yaakaar naa suñ dee jox ni ñi qualité rek ñoom léegi ñu jël ko te buñ ko dee jël rek consommation consommateur yi gën a yokku rek musique arabe dina dox incha allah. ayca dañuy jeexal Mamor looy tàggoo tàggoo bu dul tàggoo. waaw sant la sant caméraman yi nga àndal sant waa Elvision Média sant waa xalafe yëpp woykat yi ak instrumentistes yi. ak ñi nga xamni ni ci orchestre bi lañ bokk te teewuñu fi ndax ci ay jotadi wax dëgg yaani ñu leen di sant bu baaxa baaxa baax di sant aussi suñu parents yi nga xamni ñoo ñuy jàpp ni <coughs> ñun ñi ñëpp kuñ ci soxla rek presque euh, liggéey bo waron def rek euh, sa wajur waron lako tek wala sa mbokk daf la koy teggil ndax xamni ni orchestre soxna la soxla na la kon nak euh, ñu ngi leen di remercier ñom ñu ñu may lolu waye tamit di di la sant di sant kep koy ñuy sétane ak képp kuy bëgg bégg ya wax dëgg yàlla soppe yi fu ne la ñu nekk ci biir réew mi ak bitim réew di rafetlu liggéeyu xalafiya ñu leen ñu ngi leen di safoo di bég bu baax a baax ci nit ñuy safoo di leen tàggu fii ba beneen yoon incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah rahmatullah aleykum salaam wa ay ayca mi ngi noonu saa su ne seen émission taaru diine ji nee naa leen ñun dañuy jóg dem di seeti artistes yi nga xamante ne ñooy liggéey ci musique afro arabe euh, fii ci Sénégal euh, tey nañu ñëwoon fii ci Tiwaawan ci firxatu xalafiya ci kër Baba Alima Euh, ñu def liggéey bu am solo macha allah lay ñaanal yàlla yàlla yàlla xeeb doole waaye tamit ñëw nañ ñu gàttal nañ ñu waa El Vision Média tey suñu yendu neex na macha allah waaye tamit di nuyu képp ko xamante ni yaa ngi safa El Vision Média waaye tamit di nuyu Modou Yassi ak ñëpp ngi toog ak ñoom euh, ci jànkat yeeg ñëpp du ma bàyyi Pablaay xaritu ma maa Anta <laughs> maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye tamit di ziar ñëpp nii lañuy def saa su ne seen émission taaru diine dañuy tàggoo fii tàggoo bu dul tàggoo ma ànd ak sama caméraman Balla ak Mouhamed wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa El Vision Médias abonnez-vous alhamdulilah jërë ngeen jëf.